ak ay mébétam jërë ngeen jëf. kàddu yi ma sama grand bi ñoo bokk dëkk Pikine man bu may wax wax damay wax ci jumaay Touba bi njëkk ndax jumaa ji Mor Mbaye laa tudd maa ngi dëkk dëkk talib mat di mu bëgg sëñ Touba di ko dund soxlaalu ma kenn dara kii xam na moom baax xam na lu may liggéey mu ngoog léegi li ma wax mooy damay wax si jumaay Tuubaa bi nga xam ni dafa am ku def déclaration di ko tudd naan jumaa ji dafa am ay signe franc-maçonnerie ma bëgg a xam ma bëgg a wax di interpeller waa kër sëñ Fallou ak waa kër sëñ Baara mu waa waa Daaru Xudóos jumaay Tuubaa sëñ Fallou Mbàkke moo ko tabax moo ko yeggale kon moom li muy wax dafa interpeller waa njabootu sëñ Fallou jumaay Tuubaa la fa nekkaat ci jamono jii sëñ Sidi maxtaar moo ko fa def kon waa kër sëñ Baara sëñ waa kër sëñ Ciri Maxtaar maa ngi intéressé kii déclaration bi mu def ni c'est dafa ay façon franc-maçonnerie jumaay Tuubaa nag fi mu jógee naa leen ko wax tey man maa déglu sama nopp sëñ Fallou Mbacke di wax ni sëñ Modou sëñ fa sëñ Tuubaa moo leen woo njaarim moog sëñ Modou Moustapha ni leen jumaa ji ma leen sant nopp na ba pare seen dama leen yéen ak yow rek moo leen koy wax leen waaye jumaa ji ma leen sant yéen doo leen dara man mii du mas dara yàlla ak yonentam moo ko moom loolu sëñ tubaa rek ko mas a wax ci jumaa mooy yàlla si jumaa ji it lu sëñ tubaa moom yàlla ak yonent bi moo ko moom waxoon na njabootam leen yàlla eh, eh, rasulaay mooy gën gi mu def ñu ne ko waaw mu ne ko lu ko yàlla defal lu leen ko defal bëgg rek ñu ñu am jom te baax li may wax mooy kii nga xam ne dafa nekk jëkkati ay kaddu di di attaqué murid yi di leen wax lu nekk du ma tudd gouvernement mais damaa bëgg murid yi si boppam ñoom ñu jóg sañal ko seen bopp saayir si baati parce que am loo xam ni kenn waru ko bàyyi te sëñ Tuubaa waxoon na yéen taalibe yi yéen taalibe yi seen i baay si lislaam mooy saaba yi loolu sëñ Tuubaa ko waxoon man waxuma ko sëñ Tuubaa moo ne woon taalibe yi seen baay si lislaam mooy saaba yi te saaba yi ku nekk xam nañ lañ taxay woon kon kii wax li si saay rek si baatin na murid dal si koom bu ba ëllëgee kenn dal si koom yoonu murid li ñu maye baaxul li ñuy maye baaxul lii ñuy may ku jóg xas yoon wi xam la wax nañ ko bàyyi dëgg la nag Touba moo fi nekkal lislaam fu ñu ku bëgg a jox lislaam Touba ngay jox waaye ku bëgg a song lislaam Touba ngay song murid ngay song nañ bàyyi murid yi xam nga sëñ Touba naa ci loo xam ne ngeen xam ko tey sëñ Touba li ko yàlla defal laa bëgg ngeen xam ko man du ma wax xasida yi du ma wax julli jumaa dara mais day ngeen xool avant sëñ di ñëw yàlla lan la def lan yan yan ñoo gàttandu sëñ Touba sëñ Touba avant muy ñëw yan ñoo ko gàttandu ak bi mu bi mu fi ñëwee ñu fi nekkal ak bi mu demee li mu fi bàyyi ku lu sëñ yàlla deful la déggoo ma ne ma jaarat ci sëñ Tuubaa avant muy ñëw ñan ñoo ko gàttandoo bi mu ñëw si lan loxo la nekkoon ba toll fi mu toll bi mu fi nekkee ñan la nekkaloon ak bi mu demee ñan la fi bàyyi ku dul sëñ Tuubaa amoo ko ku dul lii may nii amoo ko bi ñan ñoo ko gàttandoo soxna Jaara Buso entourage bi ba mu toll mu toll bi fi nekkee ñan la ko sëñ yàlla booleel nga xool ko muy seex si koo si jub koo si indi rek tëj na àdduna bi mu demee ñan la fi bàyyi xoola njabootam kenn amu ko kuddul sëñ Tuubaa waaw lii laa bëggoon ñu ne xam kenn amu kuddul sëñ Tuubaa waaw nangul ko nag nangul suñu borom la waaw jërëjëf yaay booy foog foog foog ma foog ma jël la euh, macha allah sañse bi rafet na yaay booy ginnaaw ba ma leen euh, nuyoo euh, ngeen ñëw teewe geste bi nga xam ne maire de la ville de Dakar def na ko indi fi li nga xam ni moo di ay panneau solaire pour que gën a taxawu li nga xam ne moo di jumaa Masalikul Jinaan si facture bu cher bi nan ngeen jàngatee geste bi nga xam ne moom Barthélémy Dias def na ko. macha allah macha allah ñu ngi ziyaara ñëpp képp kuy murid la rek tey ñu ngi lay ziyaara ci monde entier. di ci jumaa Masaalikul Jinaan gi nga xam dañoo ànd ak suñu jëwriñ Alaaji Mbàkke Fay mu nekk ci bopp ba ñu nekk di liggéey macha allah kon nag ñun murid dañoo amul ku du Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ku ñu ko jàppal jàppal ñu ci liggéeyam bii rek loo nekk ñu ne ca loo wax ñu wax ko foo xool fa la ñuy xool te Barthélémy Dias dafa def lu rëy nag ndaxte ku xool courant bi daw fii ci Colobane yëpp mu di ko leeral mouridisme yëpp kontaan kon nag Barthélémy Dias dafa def lu rëy kon nag ku def lu rëy na ko yàlla may lu moo tax ñun murid yëpp taxaw nañ di ko jàppale waaye nag dañoo am lu ñu naqare ci bis bii ngeen wax ndax marché bii ngeen di wax ki wax njabootu Serigne Touba lii mu wax ñu ngi koy xamal ne ko baaluñu ko ko tey baaluñu ko ko ëllëg bàyyi nañ ko Serigne Touba ndax borom bi mu sax Serigne Touba ak monde mouridisme mën nañoo fajal seen bopp waaye nag duñ ko def dañuy bàyyi ak laahu tabaraka taala mu fajal ñu ndaxte ay jullit lañu te ci jumaa lañ nekk macha allah ñuy bàyyi loolu ak yàlla ak yonent yàlla yàlla fajal te yàlla na yàlla feer yàlla na yàlla atte ak moom ñu ngi sant bu baax a baax monde mouridisme yëpp ñu ngi fi taxawoo tey kontaan nañ xaaral jox ñoom femme waaw auzu billaahi mina rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi di sant Mouhamadul Muntaha xalif général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér noonu lañ ko ñaanalee sañ am di Modou Menda Fall di ñaanal suñu jëriñ Alaaji Màkki yu fay mu yàgg fi tey lii nga xam ni Barthélémy Dias def na ko defalu ko boppam defalu ko kenn sëñ Tuba la ko defal ndax jumaa ji yàlla ko fay sëriñ Tuba fii ci Ndakaaru mu war a leer nañ ndax dañ ni euh, Masaalikul Jinaan joyau la Masaalikul Jinaan benn la ci ci Sénégal ci Afrique koo xam ni am nga yéene taal jumaa ji muy bërëx di tàkk naa leer ni seen mbir day bërëx bërëx di tàkk Barthélémy Dias raw nga sa bal takk na bu lamp yi tàkkee na leer ni say bal tàkk na ñu ñoo ko wax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax kii nga xam ne nag mi ngi wax ci ñun dara yan góor ñi da na a sawar ñun ay amazone lañu ay jigéen lañu bu nu jàkkaarloo moom dina xam ne ay jigéen lañu dina xam ne sëñ Tuubaa am na ay gaynde ñun ku laal sëñ Tuubaa bu ko góor laal jox leen jigéen ñi jox leen jigéen ñi suñu jëwriñ ji rek i Fay rek mën na ko duma mais du ko duma ñun la koy booleel ñun ñoo koy duma ngeen baal ma ak ji dara ngeen rek lañ koy bàyyi rek yàlla suñu borom rek laawu tabaraka taala rek lañ bisimilah alors euh, euh, sëñ bi ñu ngi lay euh, nuyu bu baax a baax nu fas yéene wéccu ak yow li nga xam ne nag moo di ay kàddu li ma la bëgg njëkk a laaj mooy geste bi nga xam ne Barthélemy Dias def na ko yow nan nga ko gisee waaw lii nga xamante ni Barthélemy Dias def na ko day day day day loo xamante ni ci waroon a jiitu waaye moom bi yàlla dogalee moom mu nekk koo xamante ni nekkul ab jullit waaye waaye bëgg na lislaam bëgg na nit ñi nga xamante ni ñoo ne ci réew mi day wane ni moom dafa ne ci réew mi war a liggéeyal bu fekkee da ngaa am réew bëgg a liggéeyal sa réew da ngay xool maanaam lépp loo xamante ni rek mën naa jëriñ askan wi nga def ko ndax li acte bii mu def waroon naa jiitu ci ñi nga xam ne ay musulman rawatina ñi nga xam ne ay murid lañu waaye moom mu bàyyi loolu yëpp xool ni kat jumaa ji jumaa yi lislaam la waaye ci Sénégal la nekk te moom réew mi ñor na ko tey dëkk bi jaral na ko moo sabab mu def li nga xamante ni moom def na ko moom Barthélémy Dias ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla na ko suñu borom li nga xamante ni yor na ko te te muy meeru Ndakaaru yàlla ci am ndam lim ci bëgg te yéene ko yàlla ko suñu borom ndax nun sëñ Tuubaa lañu bëgg sëñ Tuubaa lañu gëm ba boo boo boo boo yëkkati sa kàddu jëmale ci sëñ Touba nu mu a toll ñun dañ lay gën a sant dañ lay gën a gërëm Barthélemy nag ñu koy gërëm gërëm xamante nii am na tam loo amul fu mu yem ndax ñun sëñ Touba la ñu bëgg bëgg goo xamante ku ci ku ci def lu la ku ci waaye ku ci waxul safaan ñu wax la safaan waaye ku ci deful safaan ñu def la safaan ñu ngi sant baax Barthélemy Dias ak ñi mu àndal ñëpp meeru Dakar di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex di ñaanal képp koo xam ne nag yaa ngi ci yetaay bi te am yéene liggéeyal sëñ Touba yàlla na sëriñ bi carte da dolli la waaye nag kii nga xam ne nag ma jëm ci nag ki nga xam ne nag moom moo wax wax ju rëy ji nga xam ne wax na ko ci sëriñ bi wax ko ci lislaam wax ko ci mbaale mboolem mboolem umma lislaam bi adduna bépp ko war a attaqué waaye jurit yëpp ko war a attaqué ndax lislaam la xeex lislaam la attaqué te moom nee na day wéyoo lislaam kon moom dañ dafa dafa dafay génn ci lislaam ndax Touba dëkk bu sell boo xam ne boromam moo ko sellal ci sell gu sell goo xam ne adduna bépp seere nañu ko kon soo jógee di attaqué Touba ne ay ay ay ay ay suñu faramason dafaa nekk kon yaa ngi attaqué lislaam ndax Touba dëkk bu sell boo xamante ni borom da koo sellal ba mu sell Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi fa jiitu liggéey fa liggéey bu sell jëf fa jëf ju am solo sëñ Fallou ba mu ñëwee moom it def ko jëfin wu amaa am solo boo lépp rafet na dara ñaawu ci kon l'islam buñ ko dee attaqué président war na cee wax premier ministre war na wax ndax man na ni bu fekkee ni affaire bi ñoom bàyyi nañ ko mu jàll man damay jàpp ni gouvernement bi ñoo attaqué ñoo bu fekkee ne lii nii mu jàll dama naan gouvernement bi nga moo fi nekk kon ñoom ñoo ko attaqué bokk naa si ñi gën a bëgg gouvernement bii fi nekk waaye man ku wax ci sëñ Tuubaa koo mën a doon sëriñ bee ma la gëral attaqué gi ñu attaqué lislaam nag nun la ñu attaqué ñun yoonu murit dañoo attaqué te leen xeex ñoom ci ba sayir xeex ak ñoom ci baatin te fas nañ yéene ñun ñi xam ñoo di ay musulman rawatina ñu di murit di liggéey sëñ Tuubaa danañ xeex ñoom ci sayir xeex ñoom ci baatin ndax ñun dara ñoruñu sëriñ bee nu ñor topp ñu benn dobaaram ngir ngir ngir am ñun sëñ bi bëgg sëñ bi lañu xam fekk suñuy maam ba nu judoogul ba léegi ñuy ñuy jaamu yàlla topp ci lislaam di ci wax doxin wu ama am solo yéen ñi nga xam fi nekk nag di internet yi ñu ngi leen di leen gërëm ndax seen taxawaay rafet na ñëpp ay war a ndax lii su ngeen ko jàllale wut du a jàll ba gouvernement bi jot ci te gouvernement bi nag bu fekkee ni bàyyi noonu lii mu jàll waa ji kon ne wax ñoom ñoo attaqué l'islam ñoo attaqué yoonu murit ndax boo gisee carte wii yor dañoo bokk ci jumaayi Touba bokk ci ñi taxaw jumaayi Touba bokk ci ñi liggéey ci jumaayi Touba kon wax ci Touba rek wax ñu attaqué la ku bëgg sëñ ñu bëgg la koo mën a doon te marché bi fekk dañ ko génn ci bu jaree bakkan ñu joxe suñu bakkan ndax ñun Sëñ Tuubaa rek la ñu bëgg ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yàlla suñu bopp defal leen tawfeex jërë ngeen jëf di la bu baax a baax nu jëlaat suñu beneen naataango euh, da ngay da may baal avance nii rek comme ça euh, caméra yi gën la mën a jël nga jàkkaarloo caméra ñëwoon nii voilà alors waaw jawriñ ñoo ginnaaw ma la nuyoo ba pare mhm. euh, yan kaddu nga bëggoon yëkkati si mbir mi kaddu yi may wax si mbir mi mooy man mii ngeen di gis mhm. man président Ousmane Sonko laay àndal guddi moom laay àndal bëccëg mhm. yaa dégg mais dama gëm ne dama gëm ne ñun suñu réew dafay sensé te diabolisation mënut am suñu réew Ousmane Sonko dañ ko doon wax naan ko yow terroriste nga jihadiste nga mais loolu amul du dëgg ndax jàkkaaroon naa ak Serigne Mountakha Bassirou toog ak moom Serigne Mountakha ñaax ko jox ko ay kaddu dëgg yu wér keng yu leer naññ kon nit mënuñoo diaboliser Cheikh Amar Diagne nag ku nekk xam na ko ku nekk xam na kan mooy Cheikh Amar Diagne yàgg di wax lu mel nii yaa ngi dégg yàgg nay wax lu mel nii kon bu demee ba nekk ota ak nag di wax lu mel nii dañuy xam ne loolu moom la concerné mais concerné wul gouvernement man maa ko wax concerné wul gouvernement mais dama jàpp ne dama jàpp ne dama jàpp ne tey jii réew mi dina sensé te li koy soppi mooy ñun dañ koy soppi amul lu koy teree mën a soppi diabolisation yi nag jaru ko na ñëpp dem toog te xaar te xam ne sunum réew dañ koy sensé barke Seydina Mohamed ñun Ousmane Sonko la ñu àndal Diomaye la ñu àndal te ñoom danañ sensé réew mi bu soobee yàlla ku def nag lu baax pour saase réew mi Barthélémy li muy def nii jëf ju baax la dafay dox pour pour réew mi saase jëf ju rafet la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax mais sénégalais yi nañ bàyyi diabolisation waa yi nag li mu wax ba bàyyi ko du yoon gëmuñ loolu te loolu du waxam du defaaram warut taxaw di wax leneen si suñuy sëriñ ñun ay dongoy tarbiye loon si daara ji lañ tarbiye wu sëriñ Saliou la ñu gëm sëñ Cheikh Saliou ni mu jàppee tey jii sëriñ ni mu jàppee tey jii Ousmane Sonko looloo tax ñu gëm kan mooy Ousmane Sonko xam bu baax a baax fi ñu ko teg gëm ko wóolu ko ànd ak moom fas yéene suñu réew dafay sensé amul luy tere suñu réew sensé loolu moom nañ ko bàyyi xel bu baax diabolisation yi day jeex si Sénégal loolu moom na ko ñëpp bàyyi xel bu baax a baax a baax barke Seydina Mohamed merci jaajëf grand ok man le mouvement la jeune patriote ànd seetal Sénégal ñun chaque jour le dimanche dañuy wàcc ci terrain bi ah bale foofu ba mu set chaque jour le dimanche. Ah. Mara Mara Drapeau.